Adami Il a la République, son excellence Sénégal, ak délégation bu tàkk bi ma di la ziyaar di la ndokkeel ci bis bu tedd bi ndax tey la ñuy célébrer cent quarante quatrième édition de l'appel de suñu maam Limaamu Laay appel bi nga xam ne c'était le dix-neuvième siècle loolu du tey di leen dokel ci tuuru président de la république di la wax ni tamit que bis bi bisu bu rëy la su ma gisee mbooloo mi bi jógee à travers le monde jógee France jógee États-Unis jógee Europe jógee Afrique loolu lu mu wóone ne mooy di appel bi dugg na ci xol yi dugg na ci xol yi ndax valeur yi nga xam ne si maam loolu la doon enseigner valeur bi nga xam ne day tabax jikko yi day tabax jikko yi mais surtout def ñu ay citoyens yu baax ay jullit ñi nga xam ne mën nañ jëriñ seen bopp jëriñ seen famille jëriñ seen askan loolu mooy message principal bi nga xam ne la ñu jàpp ren ten bi nga xam ne le comité d'organisation loolu lay jël thème bu am solo la ndax titre bi mooy unité socle de, du fondement de la stabilité sociale et politique thème d'actualité la looloo tax président de la république Macky Sall nee na nañu préparer cérémonie bi et le coordinateur wax na ko léegi ci discours bu mu am solo ndox bi ñuy instruction bi maa ngi féliciter le gouverneur élage Hadj Assane moo organisé woon CRD CRD bi ak préfet yi ak sous-préfet yi ak collaborateur am yi pour que ñu mën a jël toutes les dispositions yi nga xam ne dina tax cérémonie mi mën nañ ko célébrer ci jàmm ak salaam réunion nationale man sama bopp maa ko présider ay xat-xat amoon na mais cérémonie bi réunion bi amoon na solo amoon na importance bi nga xam ne dama ko bëggoon man sama bopp présider ko ñu présider ko ñu déglu li nga xam ne mooy doléance yi ñu jéem a saafaral doléance bi loolu le coordinateur Seydina Issa Laye wax na ko ne que appréciation la ci am mais li ma gën jàpp ci discours bi te li mu méngoo ak thème bi mooy unité bi unité bi dafa am solo wane na que Sénégal benn la benn bopp la kenn di ko xaar ñaar te looloo tax jaloog bi nga xam ne président de la République Macky mu ngi woote Sénégal ñëpp pour ñu nekk benn pour ñu jéem a seet lu nga xam ne tolof-tolof difficulté yi am ci système démocratique bi ñu jëm ci am ay solution yi nga xam ne day satisfaire ñëpp loolu dafa baag ak discours bi nga xam ne le coordinateur wax na ko léegi discours bi li ci jël tamit mooy di jumtukaay diggante bërëb bi nga xam ne partout mën nañu jéem a cultiver la làppe du leneen wax nañ ko jàmm lay jàmm moo fi war a nekk jàmm moo fi nekk jàmm moo war a sax Sénégal pour ñu mën a liggéey ndax ci jàmm la lépp xaj te loolu il faut ñu cultiver ko il faut que loolu partout ñu jéem a seet ko ndax difficulté yi nga xam ne am na yeneenu réew c'est parce que ñàkk jàmm moo ci nekk di wax ne sëriñ bi eh, dañu kontaan loolu ñëw fii tey mbëgte bu rëy lañ am tey mooy sama première édition nekk fii ànd ak délégation bi nga xam ne lim nañ leen e délégation bi du leneen mooy di wone ne que bis bi suñu bis la bisu Sénégal la bisu e mën nañ wax monde la communauté musulman bi ndax liggéey bi nga xam ne l'appel suñ ko jëlee suñ ko tojee jéem a xam message profond bi ak valeur li nga xam ne daf ci nekk mën nañu wax ne du leneen lu del tabax jàmm tabax jikko yi tabax li nga xam ne partout alors dafa am ay conflit loolu dafa am solo il fallait ma wax ko te président de la république Macky Sall mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne sëriñ bi nee na mu wax la mu ngi sàkk mu ngi sàkk ñaan pour jàmm bi nga xam ne wax na ko mu am ci réew mi di di la ñaan tamit nga ñaan pour tout le Sénégal li nga xam ne dafa war a nekk difficulté difficulté bi loolu yëpp mu teggeeku ñu mën a ànd tabax réew mi dans une démocratie apaisée comme niñ ko waxee réconciliée loolu moo doon message bi loolu baa loolu laa la bëggoon yëgal di la sant di la gërëm wasalaam. di leen fàttali. yaa